mbokki amateur yi wuré wa dem na këng waxi mag dem dañ caali bàkk war mbaam bés bi ñépp doon xaar mbokk yi di face à face ak Papa Sow ñu jàpp ko vendredi yemboog 21 février 2020 foofee ca stadium Marius Ndiaye ma ne ah mbokki amateur Pa Abdou njiital Paf Production lépp lu mu ñu mës wax teg nañ ci suñu bët amateur yi bëggoon bi taxawal na ko régulariser bi le combat la ñépp doon ñaan def nanu ko face à ba ca stadium Marius Ndiaye ma ne foofu dana mel ni su bënn saañ ba réer ndax Siteu bu wàcc ak waa àllu paya Papa Sow ànd ak parcelle 1 ba 26 ñu ne rumkum daje ca stade Maris Ndiaye daal di fay fekk waa Agricash di application bu bees bi nga xam ne banque agricole moo ko fi teg ngir yombal suñuy transaction yombal su suñu jëflante ci wàllu xaalis nga xam ne ku bëgg dugg ci bile face to face loolu mooy sa ticket télécharger sa application ne mainten bil Maris Ndiaye daal di seetaan face to face bi ma ne mbokk yi loolu vendredi la site Papa Sow fas yéene jàkkaarloo waxante waxante li ñu fas yéene loolu man amateur kenn du mu ko nettali ci jàmm